maam Cheikh Umar al Fuutiyu mooy antal malaazu huwa antal mustaanu huwa antal mustagaasu huwa antal jaysu wa zumaroo cheikhu umar al fuuti yu kodd aadama ay si limaan siri samba demba ali muxtaar yaa saaxibal waqti yaa mansuuru yaa wazaroo يا شيخنا يا ولي الله يا عمر يا طلعة اليمن يا ساد الأنام ويا نور الزمان وشيخ الله يا قمر شيخ عمر الفوتي يا طلعة اليمن يا ساد الأنام ويا نور الزمان وشيخ الله يا قمر شيخ عمر الفوتي سيدنا محمد هو لما دعا ربه للعزائم وما عاقوا على طلب ملائم هو خوف زلوم أو جهول ولائم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 ñaanal suñu kilifa diine yi xam na leen fi yàlla yàggal te ñu ànd ak ñoom loolu macha allah waaye it yi dawlu yi yàlla yërëm leen ñaanal ci hôpitaux yi yàlla leen yàlla yëkkati ñu dellu seen sabab. tey nag seen émission xibaaru daara ñu ngi fii ci quartier bu ñuy wax Cité Niakh seet suñu papa Makhtar Thierno di porte parole ci famille omarienne ñëwoon ko ànd ak seen. Euh, site Actu Thiès fas yéene amal ak moom waxtaan bu am solo naa bala ñuy dugg ci waxtaan bi rek bu ñu def lu jox suñu papa mu nuyoo ñu soog a duggal moom ci waxtaan bi papa bisimilah. alhamdulilah rabil aalamiin alhamdulilah rabil aalamiin alhamdulilah rabil aalamiin. wasalaatu wasalaam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu. la ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Maulana Cheikhna Umarul Fuuti yu radiyallahu taala anhu mu tax mu boole ñu ci njaboot bi ci njabootu Cheikhna Umarul Fuuti yu radiyallahu taala anhu njëkk loolu ñoo ngi ci sant yàlla sant tamit suñuy waajur mm-hmm. Thierno Habib Mountaga Daha fii ëttam la ngeen ñëw si ëtt daara Cheikh Omar Foutiyou radiyallahu taala anhu si ëtt Thierno Habib Mountaga Daha mu deen ah daanaka ñeenteelu xalifa Cheikh Omar Foutiyou fii si senegal moom Thierno Habib Mountaga Daha ñu ñëw si daara Cheikh Omar Foutiyou fekk ñu fi ñëw di taataan pour xam kan mooy ku tedd ki Cheikh na Omar Fouti radiyallahu taala anhu si ëtt mag ñi kon ñoo ngi siy sant yàlla bu baax di jiital nuyoo bi nag si ndigal kër Cheikh mar Fouti yu xalifaam Cheikh Mouhamadul Bachir tey mooy sunu waajur tey di xalifa Cheikh Omar Fouti yu ñaan yàlla yàlla na ko fi yàlla yàggal ànd ak wér ak njabootu Cheikh Omar Fouti yëpp nag fa tabaarakallah ah. di ñëw nag silsilu Cheikh Omar wàcc si mhm. ba njabootu Cheikh Habib Mountaga Daha suñu xalifa suñu kilifa Cheikh Mountaga Habib Mountaga Daha mooy xalifa Cheikh Habib Mountaga Daha tey mooy suñu kilifa tey moom tamit ñoo ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér mhm. fa ñëw tamit fekk si tamit daara ji imam Mouhamed si mi ngi nii toog moo yore daara Cheikh Omar Fouti radiyallahu taala anhu ak jàkk Cheikh Oumar Foutiyou maam Thierno Seydou mu rëdd ko mu nii depuis sunu maam ya moom nag mu taxaw lool di yar xale yi si diine l'islam si alquran ba ñuy mokkal di këru alquran bi kon boobu moom tamit ñoo koy ñaanal mu yàgg fi lool taxawaayam yàgg lool. ñu ñëw fekk si tamit sunu mag du bëkk néegu Cheikh Oumar Foutiyou mi ngi nii ñu naan ko Mamadou Diallo. ñëw tamit fekk si ak suñu doom alxasan taal moom tamit yore taalibe yi fii alhamdulilah rabbil alamin ñoo si sant yàlla bu baax ba ngay ñëw ba fekk ñu fii lu may di nuyu tamit kilifa diine yëpp suñu waxee kilifa diine yi mooy booloo fan ashhadu an la ilaha allah ashhadu anna muhammadan rasulullah lépp ñun ñoo ko bokk kon si tamit sëñ Mbaye Sy Mansour xalif général des Tidianes ñaanal ko mu yàgg fi loolu tëwal di ñaanal tamit suñu kilifa di Cheikh Mouhamadou Bamba Mbacké sëñ Mountakha Bachir sëñ Mountaga Bachir bu Xaadim Rasul radiyallahu taala anhu moom tamit ñoo koy ziyaara di ziyaara tamit kilifa diine lépp ahlu laayeen fan yi rek ñoo ngi def seen appel cent quarante trois ans bu maam imaamu wootee si lan si lislaam kon boog loolu ñun tamit ñoo si sant yàlla di leen nuyu ñoom tamit xalifa bu nekk di leen ziyaara ñëw tamit si cheikh al islam cheikh Mahi Niass mu nekkal cheikh al islam fii ñu ñëpp ñu bokk yàlla bokk yenant bi bokk lislaam waa njabootu cheikh Omar Fouti yi fii Thiès ëtt Thierno Habib Mountaga Daha ñoo ngi leen di ziyaara ñëw ba bu Kunta Njaasaan ndeysaan ñoom tamit ah ñuy ñu baax di ëxlu kunti yu seen maam tasante woon ak Cheikh Umar si maasi la waaw ñu jëflante foofu si wàllu yàlla ak yenent bi ñoom bu ñu ñëwaatee ba fii nag fekkaat fi njabootu Cheikh Umar Fouti ñoom tam ñoo ngi leen di ziyaara ñoom ëxlu kunti yu waaw ay boroom xam-xam yu nekk mat la ñu ba ñu génne seen maam génn na benn lasraar bu ñuy wax al kunti yu musallas kunti yu ñoom xam nañ ko boobu tur yàlla bu màgg la waaw kon boog ñoo ngi di siyaare di siyaare tamit suñuy kilifa alaaji mu niiru njegéen moom maam madun moom mooma Cheikh Umar fekk na ko kasaas si Saalum jox ko salaatul fatiha ñaanal ko kon boog ñoom ñëpp kër Cheikh Umar mar kon ñoo ngi leen di siyaare bu baax di siyaare waa Ceneba sekkeen ñoom tamit dañoo bokk ak Cheikh Umar ci seen maam bu jigéen jigéenu Cheikh Omar Fouti yi la kon ñëpp a bokk de ak Cheikh Omar Fouti yi kon boog ñoo ngi leen di di leen ziara di ziara tamit waa euh, Cheikh na Cheikh Sadibou Hayatou Mouhamadou Fadal waajuram ah jox na doomam taawam maam Ousmane ñu naan ko alxalifa mu jox ko Cheikh Omar Fouti yi na ànd ak Cheikh Omar Fouti yi si jihaad maamam yonent salaa salaam dénkoon kon boog ñooñu kon ñoom ñoo bokk benn yàlla ñoo bokk. yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ñu boole kon boog ñoo ngi ciy sant yàlla bu baax yéen tamit ak ci Thiès TV ba mu ñëwee ñëw si ëtt Cheikh Omarou Fouti waaw ah, ñun tamit ñoo ngi ciy sant yàlla moom Alhaji Omar euh, moom tamit surtout Cheikh Omar la ñu tuddee ko Cheikh Omar Fouti ah mu indi leen fii kon boog lépp benn la ñoom léegi dalal bu baax ñaan yàlla yàlla yàlla jàppale yàlla yàlla taxawu yàlla suturaal leen ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam église église waaw ah, ñoo ngi delluwaat aussi di nuyu suñu mbokk frère en Dieu mm-hmm. ñu ñëpp ñoo bokk yàlla mm-hmm. ñuy waa église mm-hmm. ndeysaan depuis cardinal Yacine Thiandoum diggante moom ak sunu maam Thierno Seydou Nour ah ba loolu ñu dénk ko Thierno Habib sunu waajur ba ñu dem ba ñu cardinal Thiandoum dem mu dénk ko cardinal Théodore Adrien Sarr Thierno Habib jëflanteeg ñoom ba tey njabootu Cheikh Omar Fouti di jëflanteeg ñoom si dialogue islamo-chrétien ba yàlla def cardinal Théodore Adrien Sarr dem ba monseigneur Benjamin Ndiaye lépp ñuy ànd di ko rafetal di ànd ak ñoom si dialogue bi ba tey kon Sénégal réew mi réewu jàmm la ñu ñëpp ñoo bokk ndey ak bàyyi kon boog ñoo ñoom suñu mbokk en frère en les catholiques l'église bi waa kër Cheikh Omarou Fouti waa kër jullit yëpp ñoo ngi leen di ndokkeel ci seen weeru koor bi di ànd ak yéen di ñaan yàlla yàlla yàlla nangu ñaan yëpp li ñuy koy ñaan ci mbaaxam si yërmandeem yàlla def jàmm si réew mi yàlla tàppe xol yi nekk benn yàlla def jàmm si àdduna bi si barke mag ñi si barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam si barke nag yi sax nu Mariama waaw mu yàlla yónni na ko waxal sa ñoñ ya am na kuy ñëw si ginnaaw mi ngi tudd Ahmadu mooy Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam yaakaar naa ne nuyoo bi am na solo te buñ ko déggee ni jàngee ne lépp daara la ndaxte rafetal gi nga rafetal diggante kilifa yeneen eh, këru diine yi. dem ba ci jàngu bi lépp dañuy wane a wax dëgg yàlla comme ni nga wax rek ñoo bokk yàlla waaye ñoo bokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ñoo bokk réew mi ñoo bokk réew mi kon li nga wax rek wax dëgg yàlla kenn mënu cee teg dara te mooy réew mu jàmm rek a fa xaj ndax ñoo bokk lépp jërëjëf papa waaye dañu gis ne eh, jamono yi yaa ngi ci bu am solo yaa ngi ci wàccaay bu am solo muy bis bu mag boo xamante ni yaa koy waajal muy ziyaara Pulaar ñu bëggoo laaj lan moo waral ziyaara Pulaar alhamdulilahi rabbil alamin ah, soxna si maa laa nuyu di la ziyaara di kontaan loolu si laaj ziyaaram moom Cheikh Omar moo ko njëkk def si Afrique noire muy doomu nit ku ñuul jóge xalwaar dem ba Madinatu Munawwar ziyaara ji Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu yàgg na de moo njëkk ziyaara jóge fi dem Makkatal Mukarram Madinatul Munawwar ziyaara ju yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ko doxee nag tànk soo ko xaymaa ay mille sept cent quatre-vingt daanaka 17 1797 moom la njëkk jógee fii jaare Misra def fa ay kéemtaan yu bëri si Misra dem fa jaare foofu duggee Madinatul Munawwar Makkatal Mukarram jaare ji tedd ki ba ku tedd ki jox ko ndigal si jihaad mu dellu si waat ba mu dellu see nag muy wër ci àdduna bi ba ñëw ba euh, Fuladu parce que jaar na fu Sénégal lu bëri de dama koy gàtt rek Fuladu lu tax ziyaara bi ba mu ñëwee foofu moom ku tedd ki Cheikh na Umar Fuuti radiyallahu taala anhu yal nañu ko yàlla fayal mu fekk Fuladu ku ñuy wax Alpha Molo Balde boobu temps moo doon jiitu Fuladu diggante Kolda Guinée Bissau Guinée Conakry foofu la pël firdo yi nekkoon ba Cheikh Omar ñëwee fekk ñu sonnoon lool ah, am ñu woon doole yàlla def ba mu ñëwee fekk seen njiit bi Alpha Molo dem rëbb ji moom da doon rëbb rëbbkat la woon te bu demee rëbb dina def daanaka une semaine ba dix jours soog ñëwaat si këram yàlla def Cheikh Omar ñëw fa fekk fa soxna sa moo tax jigéen ju baax rek moom moo am solo sa borom kër dem na rëbb ji àll ba def na une semaine ñëwul kër gi yàlla def ngeen am gan gan googu yow soxna si nga gis ci gan ku tedd la ngeen am benn xat kuy weex tàll ñu dencal ko foofu yàlla def Cheikh Omar ñëw soxna si dalal ko ñu naan ko egge soxna si mi ngi tuddoo noonu xam na loolu borom këram nekku fi moom rek moom moo fa nekk ak njaboot mu gis Seex ah, ko jël xar ba rendil ko defaral ko teraanga bu Seex Umar nekk fa ñetti fan si la borom këram soo ko jógee àll ba rëbb ji ñëw mu seen bu moom soxna si daw gàttanu ko ne ko aha am nañ fi de nguuru yàlla bu tedd ñëw na kon nii nga mel nii dangay ngay dem wiiri ji defaru yeesalaat ñëw toog ak moom waxtaan ak moom soxna si moom moo def loola allah ji tamit moom tamit def ñu ko soxna si wax lu mu demee mu defaru ba pare nag ñëw fekk si ku tedd ki Cheikh Omar Fouti yi leen moom waxtaan ak moom Cheikh nekk fa nag biir ñu teral ko ba Cheikh Omar lu mu fa doon ñaan moom Cheikh Omar jamono boobu jógagul woon jihaad da doon ñaan yàlla bërëb diiwaan bii lépp lu war a gane àdduna si jamono nañu doon ay jullit ñu mun a dexe àdduna ak alaaxira loolu moo doon mission balaa yonent bi sallallahu alayhi di ko jox jihaad mhm. moo tax mu dox fu bëri dem na Fuuta dem na Casamance dem na Guinée Bissau dem na Guinée Conakry dem na Mali dem na Soudan dem na Nigéria fa Baye Niass am million taalibe Cheikh Omar nekk na fa juróom-ñaari di ñaan yàlla ruux yi lañu doon ay jullit mun a texee àdduna ak àllaaxira yàlla def ba mu defee loolu nag ba motal si fulal yàlla def nag Alpha Moro Cheikh Omar di dem duggee Guinée Bissau foofu la doon dem ñuy dem di si àll bi di dem motul 30 minutes ñu egg bërëb boo xam ne Alpha Mawlo ne Cheikh Umar na naa yem fii mu ne ko lan la mu ne fii de ba mu fi doon egsi dinaa def juróom-ñaari fan ba fukki fan sooge egsi fii su may rëbbi ji te yow man ak yow jóge suñu sama kër même pas 30 minutes ñu si fii kon boog fii baax na rek nga ñaanal ma Cheikh Umar na ko alhamdulilah soo waxul woon ba ma yeewi la jox la ndigal foofu yëpp yow yaa fay ilif yaa nekk buur ba kon boobu wax na ma kon boobu yàlla fii la ko yemale kontaan naa si mu ne ko déedéet Cheikh man dañu continuer Cheikh man ne ko ndigal li jot na jox ko téere benn téere bu ndaw mu ne ko boo ko jëlee di nga rëbbi soo rëbbi jee di nga gaynde gaynde googu am na benn yax bu nekk si diggante kii ci kii kii ci kii nu wéetee la boo ko dindee yax boobu nga boole ko ak téere bi bés boo ko takkee di ngeen ilif daanaka fulaadu lépp lii moo indi Alpha Mawla Balde fulaadu ziyaara bi ñaanu Cheikh Omar ba mu fa ñaanee barke boobu fulaadu dafa bu guddeeg bëccëg day taw te foofu dafa naat lool barke boobu tamit ñoom képp ku si jàng alquran da ngay nekk wàll yi képp ku si jàng école da ngay nekk si nguur gi képp ku si def commerce tamit da ngay nekk borom alal mooy fulaadu ñaan allah kon loolu moo waral li nga xamante moom mooy ziara Fuladu ngeen koy amal sa at mu nekk di ko waajal waajaay bu am solo macha allah xam naa foofu rek dañuy profité rek di wax dëgg yàlla sunu maam egge moomu di wax rek sunu mbokk jigéen ñi liñ naan fa ndox daan taa wala may fekk fa tepp teppali kon sunu mag sunu maam yu baax yu fi nekkoon. ba léegi nii rek yaakaar naa ne suñu royee ci seeni tànk wala ñu aw seen yoon yaakaar naa ne suñu bëgg egg ci baax mu nañ faa loolu nekk na loo xam am solo waaye lan mooy ay jalooreem. moom lépp lislaam Cheikh Oumar taala anhu yal nañ ko yàlla. allahumma amin ba egg xalwaar. kër Cheikh Omar Fouti mu laajte waa Fouta est ce que amul xale bu gane àdduna si fan yi ñu ne ko axante am na kër Thierno Seydou fii am na benn xale bu fa gane àdduna day sànn mu dem ba foofu nuyoo mu laaj leen ñu ko axankay mu ne xale boobu est ce mun naa ko gis ñu ne ko waaw waaw day sànn ñu indi Cheikh Omar Fouti radiyallahu taala anhu moom shérif bi dafa gis Cheikh Omar téye ko rek fóon ko fóon ko teg ko si dënn bi ne alhamdulilahi rabbil alamin kii la ma yàlla doon wax mu ne leen lii rek moo ma tax a indi fii ndeysaan mu ñaan lu muy ñaan dellu ba mu delloo la ko yàlla moome Cheikh Umar radiyallahu taala anhu mi ngi gànnee mujj weeru Shahbaan àllarba ci fajar salaatul xayru mina nawmi mu gane àdduna yaayam soxna Aadama dara topp ko mu julli ak jullit yi fajar set wecc dara daanaka topp ko mu jox Cheikh Umar weer suba si Cheikh Umar ba midi ak jamono boobu Fuuta mu tàngee lool mu jox ko weer nàmp ba naaj bi di jant bi di di sow. waaw di sow. di dugg waaw mu jox ko wenn rek rek mu nàmp loolu jaaxal soxna maam Adama Aïcha mu ne ah jaaxal na la mu defaat noonu ba mu nekk ñetti fan ba ñetti fan yooyu nag si la woo papa yi Cheikh Oumar Thierno Seydou ne ko ah man de gis naa suñu doom bi de du kéemaan mu ne lan mu ne dafa mel ne day woor suba si suñ ko joxee wenn mu nàmp mais bu timis jotee suñ ko joxee wenn rek mu nàmp fajar bi bu ñu defee salaatu xayru mi na naw man ba julli su ma ko joxee benn avance ñu ne kii day woor nag moo ñu ko dénk Cheikh Oumar def na jaloore yooyu ba mu demee loolu ba waa Fuuta képp bu ko xam dog jot na ci jamono boobu dañ ne nañu dem si kër Thierno Seydou fa liir ba nekk su nampee rek ñu xam ne dog jot na Cheikh Oumar def na loolu yàlla nañu ko yàlla fayal ba mu demee ba am ñeenti at mu dox si kaw ndox ma si si daana dex bu ñuy wax jaajo la mi ngi foofu si Fuuta dex boobu ci dafa def kéemtaan ñu kéemtaan bi nag xaw na gudd tuuti xaw ma ndax temps bi digg na ko maye mais naal ba mu amee ñeenti at moom la def loola dox si kaw ndox mi kon boobu kooka mu ne moom seexuma lu mu am lépp nag du sama dara de sama mbëggeel cofeel si yonent bi wa sallam moo tax ma am lii ma am dafa dagg sama der ba dagg yàpp toj yàq jaxasoo yuqu baat deret bi si leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ma mën a jóge xalwaar fajar dem julli ji mu naw yàlla dafa na ko si baati baatin allah macha allah xam naa li mu wax rek ne ah, temps bi moo ñu ko dul may waaye kon xam naa ne li mu bëgg indi ci jaloore yi macha allah bari na lool xam naa li mu wax rek sunu maam Cheikh Omar Fouti yàlla nañ ko yàlla fayal ngeen gi fay macha allah wax yàlla li nga ci wax am na solo trop waaye dañoo bëggoon a xam gannaaw ba nga ñu waxee ah, li waral ziara Fulaadu wax ñu tamit lan mooy jaroo lay sunu maam Cheikh Omar Fouti Tall radiyallahu taala anhu dañu bëggoon tamit xam yan projet ngeen tëral foofu ci Fulaadu ngir liggéeyal seen maam jooju. alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf soxna Fall Cheikh Omar Fouti radiyallahu taala anhu Fula bu mu fi ba tey nag. waa diwaan bi bëggoon nañu lool yëkkatiwaat ziar ngir mm, tedd ki ba ma ñëwee foofu daaw ba daaw jéeg def naa ko tourné ba xool bërëb yu mu jaarul yépp def fa ay ñaan bu ñu eggee si dëkk ba nag ku ñuy wax sincaan ko jëngi na mi ngi si diggante Daabo ak Mampati ci région de Kolda foofu ñoom dañoo def ne jamono ba mu fa ñëw ñëw manqué woon nañu ndox jigéen ñi dañ doon rooti ay kilomètres ay jigéen boot seen doom waa dëkk ba ndox jafaleen ba ma ñëwee ñoom tamit ndeysaan ñu waxtaan ak man ñu may ma fa ay hectares ma ne lii nañ ko béy te diiwaan boobu dafa naat lool xale yi tamit ñoo ngi tukki di dem Libye maa ngi dégg am na xale yu bëri yuus dugg si biir géej gi te ñu bëri ñoo ngi jógee di waan Kolda bi foofu ma lii man sama xalaat ñëw naa jox ngeen lii lépp dama bëggoon a def na daara alquraanul karim seen xale yii ñu yar leen si diine lislaam ubbi naa fa daara jox nañ ma ay seen i doom yi lu mot ay téeméeri xale kon boog loolu ma ne kon lii yar doomu aadama yi si yàlla ak yeneen suuf saa ngi nii suuf si kon nañ ko béy xale yooyu di jàmm di béy di dund ñu bañ a dem bitim réew di fa daanaka rey seen bopp te du ñu am lu ñu bugg bu ñu desee fii si réew mi yàlla def ñu liggéey si suuf si ñoom seen bopp mun nañu ñu liggéey fii jaamu yàlla yàlla def ba ñu ma ko joxee ma def forage si sama ndimbal rek de ndimbal yàlla forage boobu nag waa dëkk ba nag di si xéewlu. di xéewlu jërëjëf jërëjëf macha allah macha allah xam naa li ma wax rek. ziara Cheikh Modou Fouti ziara bi nag ñu jàpp ko kañ mois de mars le 9 le 10 le 11 mars. maanaam noonu la noonu la programme fas yéenee tëddee. waaw le 9 bi lan la dañuy wàcc alquran alquran mooy waxu yàlla. kon alxuraan loolu nañ ko jiital si jamono bi tey jafe-jafe yi yar xale yi si alxuraanul karim yar leen si seen diine loolu la ñuy jàng le neuf matin bi ba ngoon bi waxtaane yàlla ak yonent bi aljuma bi ñu ñëwaat jàngat alxuraanul karim lépp jaamu yàlla rek amul leneen def ay zikr bu ñu jullee jumaa bu ñu ñëwee ngoon bi ñu def wajifa ak xadaratul jumaa su demee aljuma si guddi si 23 yi ñu commencé gàmm tàgg yeneen bi sallallahu alayhi wa ba bërsël comme ni ko Cheikh Omar defee woon si safinatu saadaat safinatu saadaat bii Mouhamadou si ubbi ba Cheikh Omar bindee téere bi ba pare yeneen bi sallallahu alayhi wa dafa ñëw si moom jox ko loxo ne ko lu nga wax si man lépp dëgg la wallaahi Cheikh Omar moo bind de ba mu paree si xasida bii safinatu saadaat yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moo feeñu ko jox ko loxo ne ko Cheikh Oumar lu nga wax si man lépp dëgg la kon téere boobu baatin la lépp yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam kon boobu bu ñu màggalee yeneen bi sallallahu alayhi wa su suñu bopp la ñu màggal yàlla moo ko jëkk màggal ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima kon kon lu war la farata la si bépp doomu aadama jullit nga màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy guddi googu nag samedi bi bu ñu ñëwaatee nag defar alquran ñaan yàlla def ay zikir ba tisbaar bi ñu jàng xat mi boole lu ñu amoon yëpp ci diggante alxamis àjjuma samedi bi ñu def xat mu boobu nag ginnaaw tisbaar muy doon cérémonie am na nag état bi dina yebal ak jullit yi autorités yi ak kilifa diine yi ñoom ñëpp diiwaan Kolda diiwaan Diawbe diwaan wë wéli ngara ku nekk ñoo ngi leen fi si woo ñoom ñëpp jot nañu seen lettre bés boobu nag bésu jaamu yàlla la si ñetti fan yooyu dañuy tudd yàlla ñaan yàlla toroxlu si yàlla jéggalu ci musiba yii ak balaa yi yàlla teggal ñu ko def jàmm nag si réew mi parce que lu ñu gis luy raam si ñag ba kon boog ñun kilifa diine yi jullit yi ñun ñëpp am nañu responsabilité ci Sénégal kon war nañoo jóg waxanteeg président Macky Sall waxante opposition bi ñoom ñëpp nag ne ñu toog ñu déggoo nekk benn waxtaan parce que waxtaan rek moo mun a sauver réew mi kilifa diine yi ñun ñëpp ñoo ngi wax ñoo ngi ñaan lu si def nag nañu ñaan te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne ñaan mooy gàllaay jullit kon boog ñu ñaan bii ñuy def ziaru Cheikh Oumar Fouti ñetti fan yi di jàng alquran di def ay salaatul ala nabi di zikr di tudd yàlla ah te yàlla wax waskurullaha kasiran laallakum tuflihun waaw nañu zikr si yàlla mooy lan nañu tudd yàlla jàll jàng alquranul karim jàng ismullahil azam jàng salaatul ala nabi di tudd yàlla lu bëre buñu liggéey texe adduna ak alaxira loolu la yàlla wax kon boobu loolu moo tax ziaru Cheikh Omar Fouti si Kolda si Njaan ko ji ngi ne ñoo ngi ci woo bépp jullit nag muy Tijaan muy xaadir muy laayeen muy murit bi muy képp ku naan ashhadu an laa ilaha illa ashhadu an anna muhammadu rasulullah ñoo ngi lay woo si ñetti fan yooyu ñu dem toroxlu jéggalu si yàlla tuub yàlla jéggal ñu yërëm ñu defal ñu jàmm si àdduna bi ak si réew mi si barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tabarakallahu papa yaakaar naa ni sax da nga laalaale sama question bu mujj bi te moo doon dénkaane yi ci réew mi waaye yaakaar naa dikk nga ci ndax li nga wax ne réew mi yàlla fi yàlla indi jàmm woote ba ci nguur gi président loolu yëpp yaakaar naa ne moom laa bëggoon nga ñëw ci dig dénkaane yi te indi nga ko kon macha allah ñu def rek lu dul sant la gërëm la ñaanal la yàlla bésu ziar bii ngeen jàpp yàlla nañ ci dugg ak bisimilahi rahmaani rahim eggale ko ak alhamdulilah rabil alamin yàlla dafa leen ci ndam lu sut sute sut seen njort incha allah yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def xam naa kon mbokk yi euh, mu nekkoon seen émission xibaaru daara ñu ameloon ko fii ci Cité Niakh ànd ci ak sunu papa Thierno Makhtar Habibou Tall ñu Mountakha Tall ñu doon waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moom mooy ah, seen ziyaara Fulaadu bi nga xamante ni moom lañ doon waajal dégg nañ tam li mu wax ci waral lu waral ziyaara gi waaye tamit lan mooy jaralu sunu jaloore sunu maam Cheikh Omar Foutiyou Tall wax nañu ko wax nañu tamit li nga xamante ni mooy projet yi nga xam ne moom lañu fas yéenee amal ci ziyaara gi waaye wax nañ tamit li nga xamante ni moom luñ ko tëralee kon lu ñu def rek lu sant leen gërëm leen waaye di leen jox dox daje ci beneen émission xibaaru daara wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala xam naa papa kon ñu bàyyi rek nga defal di ñaan ñu yeewee ko beneen incha allah am na suñu benn mbokk taalibe tamit ñu rek muy taalibe Cheikh Al Khadim Cheikh Mouhamadou Bamba Mbacké muy alhaaji taala sàmm mi nii yegg kon du hasard mm-hmm. soxna maam Jaara uh-huh. radiyallahu taala anha si teel wa uh-huh. ba Cheikh Umar ñëwee ànd ak mbooloo bu jigéen ñi bëri woon nañ fa lool ñu bëre daw soxna si rek moo fa desoon si teen ala innahu saad al qabla aadami imam cheikh umar al fuuti na muhammad shafi lul waral munji lidalik yuhmadu إذا اشتدت الأهوال لا فيرضي لهم ربا ويكفيهم رعيتا على حديقة رسول الله صلى الله عليه وسلم